nañu rek dimbali rek nañu usman sonk candidature am validé nañ ko. Uh-huh. waaw bu boobaa nag ñu ñu nekk ci li ñu war a nekk rek. waaye fi mu ne nii lii la ñuy def ak lii la ñuy def ñun ñun ñun doxewuñu noonu au niveau de Pastef ñun toujours surprise rek mooy am. Uh-huh. ndax dañuy waxtaan suñu biir mu jeté ko denc ko ne pat ba waxtu joxe rek ñu joxe. Uh-huh. ñu xaar ba waxtu ba jot. ba waxtu ba jotee incha allah. di ngeen xam la conduite à tenir. taxawaayu magi Pastef. ñu ngi ci. envers envers euh, ci ginnaaw Ousmane Sonko. waaye yow euh, attachement indéfectible attachement indéfectible ñafe ko bu baax. Mhm. soutenir ko bu baax. lever de fonds bu baax Ousmane lu mu ne rek ñu ne ca magi Pastef ñooy papaam ñooy ay yaayam ñu ciy jàppale Adja Khady Ngom jigéen ju baax jooju nekk ci Ziguinchor cette grande dame laa. nga xam ne kenn déggu ko ci dara mi nga ne tekk rek yore kursam mhm. dool dolli ñaan bu baax a baax yàllaa ngi ñëw te mhm. billaay dina baax mhm. incha allah voilà mais processus électoral bi jamono ji ni mu nekki parce que à moins euh, un mois et ci wàllu élection présidentielle euh, ñu war cee dem mais jusqu'à présent ba léegi euh, maanaam déggoo amagul ci li nga xam ne moom mooy candidat yi surtout euh, candidat la candidature ñu ñu recalé euh, ba léegi ñoom ña ngay wër euh, di sàkku à que ñu daal di ubbiwaat li nga xam ne moom mooy mbirum parrainage ba léegi jusqu'à présent maanaam mbir yi na mu waroon leere wala nañu doon xaaree mu leere ko ba léegi leerewuñ ba sax am yu bari ne est-ce que ko combat boo xam ne dañ ko daal di perdre d'avance. ku ko perdre. kan ma opposition bi. ah. opposition bi ñun kay perdre dara ñun dara la ñun de bokkuñu ci ñun. perdre ñu dara. mais xanaa bokkoon ci opposition bi ñi ñi ñi perdre d'avance déet ñi perdre d'avance tey ñi nga xam ne ñoo bëggul affaire bi dem. ñoo bëggul affaire bi normal lu ne ñu ci xëcc di def ay recours rek di def lii di def laa di sonal nit ñi yow kay boo yoree yëf yore 3000 électeurs yoo xam ne ñu ngi taxaw pare laa bëgg laa voteel amatul looy looy ragal léegi kay fu foncé rek dem rek jusqu'au bout mhm. loolu mooy dëgg waaye kii non amuñu lu ñuy ragal ñuy ragal kay mooy lu ne ñu xëcc ko. man man man foogu moo ne ay Amadou Ba di def ay recours recours ci la ay buñ jot ay ay muy Mamboy Diaw Mamboy Diaw ay euh, Aly Ngouille Ndiaye non man góomu loolu ak Bassirou waaye ñoom ñi mu bokkal famille sax bu leen ci boolee nag liñ naan doom ñi mu bokkaloon famille ah ñoo bokk famille ba de ñoo ko bokk de ñoo ko bokk de yii xaaral ba ci kanam da nga wax loolu maa la wax lii xaaral ba ci kanam rek ñoo bokk famille yow bokk famille bokk lu bokk ñu ñun ñu bokk ñoom dara ñun Ousmane la ñu bokkal. Uh-huh. bokk rek benn principe ak suivre benn voie boo xam ne incha allah ñu ngi ciy topp di ñaan yàlla mu may ñu. gëm nga ne processus bi buñ ko toppee dinañ am élection yoo xam ne yu daal en tout cas de loolu la ñu bëgg te ñoom war nañ ci veiller ndax nag ñoom ñooy responsable ñooy nekk ci pouvoir bi di gérer kon lu rafet rek ñoom am nañ ci cër lu ñaawit am nañ ci cër kon nag dañu rafetal. ku war a gañe rek gañe waaye ñoom ñoo yore administration bi ñoo yore yëpp kon kay dañ ko war a gérer dans la plus grande transparence uh-huh. léegi ñu def élection yu libre et transparente ku gañ a jël te bu demee bu ñu bàyyee sama waa ji may ko jàmm may ko salaam ni ko ko bi mayee waaw te euh, ñu gëm yàlla Amadou Ba xam ne yii muy wax yëpp nekkul ci code électoral bi day day guddal jël rek mu bàyyi yooyu te ñu avancer positivement. Uh-huh. dem ci élection yi nit ñi dañu sonn Sénégalais yi dañu yàkkamte élection yi mu jeex ñu nag dekk ci yeneen affaire uh-huh. tourner une page boo xam ne sombre bii ubbi nag bu bees. Uh-huh. plein d'espoir quand même. ok waaw loolu ci lañ bëgg a nekk. ñu daal di koy jeexale ci sonkorisation bi nga xam ni euh, ñu ngi koy nemmee que ça soit statique que ça soit euh, ci lieu public yi Ousmane Sonko namu na libéré Ousmane Sonko mu nekk benn chanson boo xam ne euh, ça devient viral ci li nga xam ne mooy réewum Sénégal pour pour ne pas dire ci réseaux sociaux yi ñu gis la dernière ama du baax foofu noonu ca na moom daal dina euh, jël li nga xam mooy wàllam ca wàllu sonkorisation bi est-ce que lii du am benn annonce boo xam ne euh, mi ngi koy def ci campagne électorale yi ñu li ñuy dënwal xale yi daal fi ñuy fël kenn xamu ko li ma la naan Ousmane Sonko yàlla mel jë Dieu ku gëm yàlla rek danga ko war accepté xale yi ku leen jàngal way bi kenn xamul fu ñu fu ñu jële way te dañ ko doon fooyee rek ci benn benn nawetaan nawetaan effectivement foo rek suñ ko banalisé wul xëy na sax passé na inappel mais sénégalais bëggul ko ko persécuter sénégalais bëggul ko ko ne lii doo ko fi defee ah. ñun on est né libre et nous voulons rester libres de pensée et d'action nga xëy rek bëgg na lii du fi amee affaire bi jolli da nga foog ne sonkorisation bi fii la yem mois je viens de la France stade yëpp bu fa Sénégal di football dañuy sonkoriser mhm. fépp fu Sénégal dem di football dañuy sonkoriser man gis naa ñu jógee Paris dem ba Lens Ah, di ah. sonkorisé ma ne da ngeen seetaanu match bi ñun seetaanu ñun match bi dañuy sonkorisé ma ne yéen yéen bari ngeen jot bi ñu ne waaw waaw suñu leader kay sonkorisé la dese boo nee da ngay meeting ñu ne doo da ngay marche ñu ne doo fi marché. Ah. boo nee da ngay réunion ñu ne doo fi réunion boo loo bëgg def nga xam ne démocratie moo ñu ko may depuis bu yàgg yàgg yàgg ñu xëy tey daal di ko anéantir mettre tout à terre léegi nag beneen solution la ñu trouvé bu ànd ak jàmm nag. Uh-huh. ndax xam nga lii moo gën génn ci mbedd mi di xeex ak xuloo nous refusons de nous battre ci tali bi dans la rue. Uh-huh. on va se battre autrement avec les urnes les cartes ak nag di sonkoriser fu ñu toll. Uh-huh. léegi ngénte yi sax bongo maan yi dañuy sonkoriser koo wax mu ne la yaay sonk. boo ko laalee xale yu jóg yaay sonk ah bongo maan loolu ñuy wax léegi. boo ko laalee xale yu jóg waaye léegi kon tu réfléchis ne ah lii daal li ko indi war naa tax ba jéem a seet tëb beneen tëbin. mais tu persistes et tu signes di di rester dans la même. Euh, euh, euh, logique bëgguloo avancer bëggoo évoluer ne Ousmane Sonko daal euh, jamais. Mhm. jamais jamais kenn du ko wax dans la vie ndax yàlla ku mu samp rek jamais réew. il ne faut il ne faut jamais dire jamais. waaw jamais ci Ousmane Sonko mënul nekk na Ousmane Sonko moo ne ci xol gis nga ci dara barki démb rek. barki démb. ah BRT bi bi ñu koy inauguré. <laughs> xam nga ne benn projet bu toll noonu. de cette envergure depuis quatre ans ñu ne ci. Uh-huh. nga xëy di ko. di ko inauguré. say militants sax gisoo leen xale yi ne ci mbedd mi rek forum mu ñaan Sonko Sonko libéré. Sonko mais nag euh, ñi ànd Sonko aussi dañoo sonal euh, mouvance présidentielle. waaw mais sunu waaj yi dañ ko sonalee dafa ëpp. Uh-huh. nit ki nag li nga mën a fayoo rek ngay fayoo. ok Sonko de xam nga ne ko de sonnul da ngay wax lu la neex. Uh-huh. moom nag na ma baal ndax dama nekk ci média. xam naa di dina ko dégg uh-huh. sonn na lay bañ a dégg moom nanguwul ne dafa sonn acceptel nañ ko ko waaye nit ñi ànd ak moom nag li koy def dañu ne diis na uh-huh. diis na comme diis na nag ñi ànd ak moom tamit nee nañ leen bu leen xeex bu leen toj bu leen laal bu leen def dara ndax am na ñu bari ñoo xam ne dañu nekk fii ci ruq bi di xaar nga yëngu su ñu profité yàq ñu ne sa waa Pastef foo ko def ak ay Sonko léegi bàyyi nañ boobu stratégie ñi bëgg a yàq nañ dem yàq waaye du doon ci ñun lay jóge léegi su ko defee ni taxaw ci mbedd beneen Sonko namm naa la. mën mhm. nañ ko de ñun dañ <laughs> gis nañ loolu mais lii tamit dafay annoncé couleur yi nga xam ne maanaam li nga xam ne moo la xew ci campagne électorale yi que ça soit Ousmane Sonko mu bokk wala mu bañ a bokk surtout euh, ñoom suñu fexe maanaam suñu defee le tout ba recalé ko dina nekk ay élection yoo xam wala campagne yoo xam ni dina métti loolu ci candidat mouvance présidentielle ou bien nga nekk ci opposition bi. mënuñoo recalé ñëpp. Uh-huh. recalé ñëpp ba mu mënoon a nekk. Uh-huh. waaye kii génn na xamuñu ko. ñoom fi ñuy visé xëy na sax du foofu. Uh. moom daal recalé moom ñëpp mënul nekk. candidat moom dinañ ko am incha allah. Uh-huh. daa yow tam élection yi. kon a part dañ leen koy bàyyi. kon à part Bassirou. Euh, Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko xaw ma Ousmane Sonko xaw ma man. Cheikh Tidiane xaw ma xaw xaw ma du ma tudd kenn. candidat daal dina am ñoom dañu yaakaar ne dañ leen di bàyyi élection yi noonu ñu jël ñu leen neex rek teg fa. kon am ngeen stratégie. waaye yow toogal di xool ñun day sunu stratégie duñ ko wax kenn ñun duñu wax kenn dara loolu mooy sunu fort. de silence de mort la. mooy forum ba passif lu ñu bëgg def dinañ ko def te duñ ko wax kenn bu waxtu bu jotee da ngay yeewal lii c'est pas possible. mais gis nañ ne ak euh, confiance ngeen ni euh, doxalee li nga xam ni euh, moom may seen biir bien vrai que ne confiance dafa baax ci lépp mais nuñ leen di gisee jamono ji cela la ba jekk ni am na ci lu wér loo xam ni tënku ngeen ci wala teg ngeen ci seen loxo. parce qu'on ne triche pas ñun ci dëgg rek la ñu nekk gis nga quand tu ne triche pas nekk ci dëgg da nga dañu am conviction am yaqin sunu leader bi dinañ ko may jàmm dañ ko gëm. waaw Ousmane dañu gëm ne mais mais amul loo mën a teg si loxo nit ñi te nag au delà même du Sénégal le monde nous regarde. Mhm. le monde du regarde gis nga man bu ma dee autorité mais responsable am na décision yoo xam ne bu ma koy jël dama koy jël parce que bu ko monde bi gisee du dara du am dara luñ may yedde mhm. léegi booy retenir Ousmane Sonko da nga koy teg si lu leer. ne lii moo tax ma retenir Ousmane Sonko. teg ko si ay base claire mais loo teg loo xam ne nee nañ ni du loolu mais responsable war na bañ loolu. Uh-huh. man de su doon na la du ma ko def. loo xam ne daal droit may na ko Ousmane Sonko danaa ko lu ko droit xañ ma xañ ko ko waaye lu ko droit may dama ko koy jox. ba mu jeex tàkk. la communauté internationale nag parce que euh, itamit bien vrai que nañ ci àddu mais processus électoral nag gis nañ ne euh, dernièrement euh, ñu ngi yónnee ay délégation ngir ñu ñëw caytu élection yeeg li ni mais dañu gis que ne noppi bi nga xam ne noppi nañ ko ci persécuté yi nga xam ñu koy def ñenn ci adversaires yi y compris Ousmane Sonko. c'est un problème sénégalo-sénégalais ñun ñoo ko war a régler mais aussi la communauté on n'attend pas la communauté internationale pour mu régler ñu problème mu sénégalais yi ñun sénégalais yi ñoo war a am fulla am fayda régler suñu problème on les attend pas pour loolu euh, les observateurs yi doon yàgg nañoo ñëw ci élection élection bu am ñëw nañu participer à leur manière lii am na lii am na def seeni rapport dem mais le problème bii sénégalais yi ñoo ko mën a régler mais pas les étrangers quand ñooñu vraiment nañ leen épargne ci ay critiques yooyu ça n'a rien à voir là-dedans le problème des des autres pays là ñoo koy régler seen bopp ñu dem ñu régler ko pourquoi ñu war a ñëw euh, attendre deux ñu war ñu régler le problème du Sénégal le problème du Sénégal ñun ñoo ko war a régler uh-huh. euh, lay jaajëfal bu baax a baax mbégte la woon euh, doon bokk ak yow doon seq yow bii li waxtaan bu am solo di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal aussi suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi doon ñëw bàyyi xel l'émission tire à sa fin di la jaajëfal bu baax a baax. waaw kay merci man tamit maa ngi remercier ñëpp. Uh-huh. di ñaanal ñëpp jàmm. di ñaanal sama leader yàlla génn ko ci bii ba nga xam ne sunu tenue yi nga xam ne jot nañ koo jënd pour sol ko ci campagne bi ñu mën cee sañse bu baax a ah baax. ah da ngeen ah, yi pare nañ. waaye da ngeen <laughs> ko naka la moom nu mu bëgg rek noonu lañ koy doxalee incha allah. te ngeen koy ndiroole yéen waa Maggi Pastef. dama ne Sénégal laa wax. ah du du du Sénégal Sénégal <laughs> bu Sénégal génn rek ñu xam ne. sunu waa ji macha allah. moom la yàlla àndal. Mhm. di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di remercier ñëpp di remercier waa diaspora bi. Mhm. di jox mention spéciale. Mhm. gis nañ seen taxawaay yal na yàlla fay leen yiw. di remercier waa Medina tamit nga xam ne ñooy sama base. di gërëm magi Pastef yi nga xam ne tam fu ma dem rek ñoo tax ma dem fa. Uh-huh. yal yàlla di nuyu Mouhamed bu baax a baax. aussi voilà mu koy nuyu bu baax a <laughs> baax di nuyu aussi suñu mbokk internet di nga xam ne yéen a doon ñu bàyyi xel tout au long de l' di leen jaajëfal yéen ñëpp di jaajëfal aussi bisu bi nekk.